asalaamaaleykum wa rahmatullah taala barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokki dëkkandoo ñu ngi nii ñëpp di leen siyaar di leen balaq di leen balaq di yëkkati suñu kàddu ci li nga xamante ni ak yokkuteef la goo xamante ni sama borom dogal na am ci quartier bi di ndoxu seen eau nga xamante ni ni sama borom daa dogal ñu tënk woon ci forage bi te sama borom dimbali nu ba ñu doon ci dox di ci wax ak maire ba maire yeble fi sama borom dogal dugal nañ ko ci gàmm ki léegi nag ñu ngi koy dugal ci biir kër yi tey jii fii la ñu xëy pour def ko ci biir kër yi may ci yeesalit samay kaddu yoo xamante ni waxan naa ko naka jekk dama koy waxaat fu ma toll mooy li ma mënta dégg mooy nii kii daf ko fekkan mu am ndox ci forage bi ba pare nga xañ ko ndoxum forage bi ba pare joxoo ko ndoxu seen eau bi amul ndox te loolu am na ci kër yoo xam ne ak tellement fi mu nekk tey jii mënuloo am ci ndox mi wax naa bind naa maa ngi ñaan nag ñu seet ba noonu may dimbalee ba nga xayante ni kër yëpp gu amoon robinet euh, forage bi da ngay am robinet ci seen o waaye bu nu éliminer forage bi ba pare nag ñi nga xam ne tuyau yi agul ci ñoom agg amuñu ci ndox mi amatuñu ndox fii amatuñu ndox fële ñooñu moom ci tumuraanke la ñuy nekk. te kenn ku ne xam ne ni lu ne lees mën a ñàkk ba mu des ndox loolu jàllee nag ñu ngi sant maire ñu ngi koy gërëm gis nañ taxawaayam ak équipe bi mu àndal yëpp parce que jëmm ju ne nag loo yokk ci darajaam xam na ko loo ci wàññi xam na ko kon loo defal doom adama ci taraanga xam na ko kon ñu ngi sant bu baax di leen gërëm di ci kontaan lool ñu ngi taxaw itam ci li ñu waxante woon mooy kenn ku ci ne bala ñu lay dugalal ndox bi doo amee Aquatech dara da ngay fay sa dernière facture foog naa li ci ëpp ñu ñu kiyagul yi ma yor seen borom da koo fay muy ay dernière facture kon loolu bokk na ci loo xam ne war nañ ko koo xamante ni fayloo sa dernière facture nag même bu ñu dugalee ndox dañ koy téye dañ koy tëj ba keroog ngay fay dernière facture ñu door laa jox ndox mi waaye doo génn ci kër gi amel kër gi bor di dugg ci geneen kër loolu moom dañ koy bañ kon loolu bokk na ci loo xamante ni noonu la dina ko leeral di leen sant di leen gërëm di leen baal ak di baal ñëpp ak jërë ngeen jëf merci beaucoup. waaye yëpp moom jël nañ ko ndax fu ñu ci war a dox rek dox nañ ci lu ñu ci war a wax wax nañu ko ba fii mu ne kenn ku ne koy dugalal ndox ci këram rek yaakaar naa ni matuwaay yi nga xamante ni moom lañ ko sant ni yëpp def na ko ba mu mat loolu am na moom yàlla yàlla baax na jërë ngeen jëf. naa yàlla rek maa ngi nuyu ñëpp macha allah di kontaan ci ndox mi ndaxte at yëpp ñuy root xam nga rooti dafa metti te ndox moom mooy lépp heure boo xëyee boo ñàkkeem ndox da nga am problème wax dëgg yàlla forage bi moom normalul wax dëgg yàlla ñu wax rek te yàlla tax kon nag comme ndox mu dugg na ñu ngi sant yàlla di kontaan rek di ñaan yàlla doole xéewal gi yokk ko bu baax a baax rek allah kontaan rek ak mbégte ndax mi dafa metti <laughs> ah Diop si moom xanaa di ko ñaanal rek yàlla doole xéewal gi yokk fan wi macha allah kontaan nañu. ndax lii bonaloo ko sa bopp kon nan la koo defar rek da war a sant kon yal na yàlla dolli xéwal gi macha allah kontaan nañ daal jërëjëf. nan ci taxawaayam yal yàlla yàggal taxawaay bi wax dëgg yàlla sonnoon nañ ci ndox mi trop da nga daan jógaay une heure root sonn ci bay bëgg a dee mu defal ñu xéwal bi ñu ngi naan yàlla yàggal taxawaay bi ci daraja yonant bi kontaan nañ trop fekk nañ suñu biir kër te boo bëggoon a am ndox da ngay sonn bay bëgg a saa ci teen yi nga daan yendu tara bi nag du xeelu guddi guddi ba guddi rek lay xeel di kontaan nan yàlla na taxawaay bu yàgg yàlla na ko li muy li muy xool ci kii bi yàlla na ko ci gis ci daraja yonant bi dama déggul wolof nag <laughs>